dali na jàmm ñu ànd xëy yër ka yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo journaliste bi di Cheikh Yérim Seck moom nag mbaadu fanaani tey jii sa kaso bu rëbës yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu tey ji nag dina daal di jano ak procureur ni ki dëmb section de recherche bu fédéral bu moo ko déglu ba ñu ko dégloo ba noppi daal di koy fanaanal ci gendarmerie bu conk yéenekaay gi mu ñu xamal lan ni li ka waral mooy lu soxal wàllum Mbaté plus gi nga xam ne Cheikh Yérim Seck dafa wax ne lu ëpp ñeent ci ay milliards waa gendarmerie daal nañu koy gis famille Farage loole nag jëm ci wàllum évasion fiscale yéen a kaay gi mu ñu xamal laan ñu Cheikh Yérim Seck daat nay wax tamit ne cabinet maître Malick Sall mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum justice ci réew mi maanaam moo yore boobu le dossier enquêteurs yi ni ki démb yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na dañoo laaj Cheikh Yérim sekk maanaam ba sonn posé ko ay question di ko wax ne ko ndax mën nga ñoo wax ay firnde ci li nga wax ne gendarme yi maanaam fekk nañ lu ëpp ñeenti milliards ci famille Farage waaye nag Cheikh Yérim Seck la mu leen xamal daal fi ma jëlee samay xibaar man du ko wax maanaam samay source du ma ko benn yoon enquêteurs laaj ba sonn Cheikh Yérim Seck daal di lànk kandaare si la ñu ko daal di jël yóbbu ko gendarmerie bu conk tey ji dina daal di jano ak procureur yéen kaay gi di mu ñuy xamal naan ñu gendarmerie brigade de recherche bu fédère bu moo déglu Cheikh Yérim Seck commandant Mbeng mi nga xamante ni moo nekk section de recherche bu Colobane moom tim dinañu ko daal di ci mbir mi ak gendarme yi nga xam ne maanaam ñoo demoon ci bat plus famille Farège journal bi di l'observateur nee na ñoom tim danañu lépp procureur moo ko daal di santaane ngir nag mbir mi daal di leer naññ ci bopp askanu Sénégal yéen kaay gi de L'As ak L'Observateur ak Le Témoin réew mi quotidien Sud Quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu coon sekk mi nga xam ne ay at si ginnaaw doon nañu ko tuumaal lu jëm ci ay léexoori faux mu joon sax ñu daal di annulé li nga xam ne mooy procédure bi jëm ci ñàkk ak respecté règlement 5 bu UEMOA coon sekk nag dañu ko daal di attewaat ni ki démb la mbir mi commencé waaye nag procureur dafa wax ñu daal di lu toll si juróomi ati kaso ba koy alamaan lu toll ci fukk ci ay millions nga coon sekk moom nag la mu xamle ni ki démb ci baar bi nee na dañu koo daal di liggéey ba pare ab complot la moom wax na sax ne lii daal maanaam mbir la moo xamante ni mu tàq ci moom la te du ko te benn yoon maanaam lu ko métti la daal di wax nag magistrat bi na ko man su ma xamoon ne ay faux billets la maanaam du ma sax ñëw ci yéen ndax du ma ko laal yéen a kaay gii de la sam mu dikk ci li nga xam ne mooy caxte caxte bi nga xam ne ñoo ngi koy yàq littoral bi di fa dëkk géejawaay nag jamono ji askan wa ñoom daat nañuy mer ba futtu jóg jóg taxawa ndax nag ci Géejawaay lu toll si ñeent ci ay hectare dañu ko daal di xàppatil ñi nga xam ne ñooy ay magistrat ak lu toll si ñaar fukk ci ay hectare ñu jox ko syndicat bi ëmb inspecteur des domaines loole nag moo naqari waa Géejawaay ba ñu jóg nag fipp na mbir mi nag dañoo bëgg mu daal di dakk yéene kaay gii di libération moom mu daal di xëy nag ci seen o gi nga xamante ni moom sax moo raw ndekkee waa SDE seen o moom yemul sax ci askan wi ñàkk ndox rek waaye facture yoo xamante ni cher na ba jéggi dayoo te amul yenn firnde yoo xamante ni waa seen o daan nañu kas yi indi bëri na ci askan wi ñoo xam ne daat nañ leen di porter plainte yéen a kaay gii de la témoin mu ñu xamal naan ñu Cheikh Béthio Thioune ginnaaw bi mu dëddoo àdduna toll na ci benn at waaye njabootam gi xiiroo gi ak ŋaayoo gi coow li bëri na ci loola yéen a kaay Dakar Times mu ñu xamal naan ñu lu soxal wàllum détournement bi nga xam ne ñoo ngi koy wax ci marketing bu IAAF lu yéen a kaay gi nee na la yoo xamante ni amul benn preuve yoo xamante ni andi nañ ko a kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu ñi nga xam ne ñooy école privée yi ñoom Italie moo tax daat na ñuy bind njiitu réew mi di président Macky Sall bind di yërëmtalu ak nag njàq rek tiis gi nga xamante ni daat na leen di dugg ak seen ëllëg ñoom école privée yi daat na ñuy wax président Macky Sall naka lu jëm ci wàllum paiement seen salaire yi ak wàllum facture ndox yee courant yi ak engagement yi ñu jëloon ci banque yi bu leen état bu Sénégal jàppale wu rek caaf dina daal di xëma ñoom école privée yi daat na ñuy wax ne téeméer boo jël ci élèves yi jàngi ñeen fukk yi ak ñaar ci école privée yi la ñuy jànge te école privée yi bu ñu nërmeeloo nag loolee musiba rek lekk lay jur ñoom école privée yi daal di wax ne benn milliard bi nga xam ne moom la wax ne moom la jox loole nag amul lenn loo xam ne mën na leen kaa jariña ndax école privée yi bi ñu ko xaymaa toll nañ si ñaari junni yu fekk juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróoma ba tey ci biir yéen kaay gi mu xëy di ñu xamal la ñu woppi coronavirus moom ma ngi law ci réew mi ndax ni ki démb ci altine bi am na ñeenti nit ñoo xamante ni daat nañu ci faatu mari taw mi nga xam ne ay jamono mooy yoroon njàng mu kaw mi moom nag daat nay joxe xalaatama ci woppi coronavirus nee na mbir moom lay lawee nga xamante ni moo ci am dañoo war a nag confiner Dakar ak Touba maanaam tëj leen ñu duñu génn yéene kaay gi du l'Observateur mu ñu xamal naa ñu waa FMI en tout cas ñoom daal daal nañuy wax lu doy waar doy waar ci Sénégal ci woppi coronavirus nee ñu senegal xiif bi nga xamante ni mooy yoot Sénégal yi maara day taal yi yéene kaay gi du Sud Quotidien ñu fekk fa Cheikhna Thioune moom ab économiste la moom nu mel noonu sax la waxee ndax nee na woppi coronavirus li muy faagaagal maanaam ci wàllum koom wàllum économie maanaam faagaagulu ko ci lu jëm sax ci wàllum wér-gi-yaram laas mu ñu xamal laa ñu négociation yi nga xam ne moo doon dox diggante Sénélec ak Akilee négociation yi tàbbi na géej yàqu na ndax nag ñi nga xam ne ñooy waa Akilee Sénélec da leen a proposé maanaam jënd nag Akilee loole nag Akilee ñoom dañu koo daal di lànk ba tëdd sa naaj wa nee nañu sax maanaam résilier li nga xam ne mooy kontra bi ba pare ñu fay leen seeni paiement de indemnisation maanaam ndàmpule na moo leen daal di gënal waaye nag ñoom waa Akilee du ñu nangu benn yoon jël nag seen société di ko seyal si Sénélec du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu a stade mu ñu xamal naan ñu tey nag la finale coupe d'Italie diggante Naples ak Juventus de Turin yéen a kaay gi xëy nag di wax ne ndax nag Cristiano Ronaldo bu janoo a kali ak Kalidou Koulibaly ndax mbir mën naa am foofu.